donc biddéew dafa sori ci kaw asamaan la nekk góor yàlla yi dugg xalwa ñu yàlla may basiira ñu mën a gis am baatin di ñaan doom jooju biñ koy ñaan baayam cheikh na Mouhamed Vadul la tudd cheikh na Mouhamed Vadul dugg xalwa deux minutes mu génn ni kii maa koy jur ba ci téeméeru doomam yi amoon na ñu mu bokkal ndey ak baay doon ñaan biddéew bi nga xamante ni mooy texeel baayam waaye nag cheikh na Mouhamed Vadul yàlla may ko Mon ni mooy jur cheikh na cheikh Sadio bi wax nga en 1848 kon comme mom chance la tudd Sadou, di bonheur kon fa mu woné ni mom chance la lool nak da ci donn mamam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ndax sayyidil wujudi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. sallam keroog ba mu juddoo ca Màkka bouri wa waa bañu ba ñu annoncé juddu yonent bi ba yonent bi juddoo kenn ku ci nek dañ la fekk nga dugg ci sa suuf rondal nekkatoo ci sa kaw lal parce que dafa am mutation am révolution transformation <coughs> changement bu gaaw boo xamante ni yonent bi yàlla moom moom la indi fii laylatil isnayni laa badrul huda najmul falah yahdi ila daari najah akrim bihi min muhtadi cheikh na cheikh Saad bu nag judduwaat en 1848 comme que moo donn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni man jaddahul Mustafa bil irsi akmalahu yonent bi mooy sama maam maa ko donn cig mat faaw ñu gis juddu yonent yàlla Muhammad ci moom moo tax ba mu juddoo en 1848 mu amaat changement boobu noonu amaat mutation yooyu noonu lépp luy jaam jeex chance la chance booy ñëw da ngay indi jàmm jaam jeex développement am comme que chance la ñu créer machine ñu mun a sol mbubb ñu créer léegi si jaada bi ñu mun cee julli dafa donn maam Seydina Muhammad sallallahu mu judd nag ni yonent yàlla Muhammad juddoo yonent bi dafa juddu waxtaan ak yàlla yonent bi rek mooy juddu ñu yumi sababata miqbaadan usabbiuhu mislal musabbihi judd na ca màkk moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xool ko njañ lay daanu ca ginnaaw moom mooy liir bi indi 32 dans sacré yàlla kaw ak suuf moom seydi wujudi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo judd kanam gi leer ba mel ni weeru fukki fan ak ñeent moom Seydina Muhammad moo juddu ñu jëlaat liir bi yóbbu àjjana sangoo ko sangee ko zam-zam tuur ko parfum misk indiwaat ko ci àddina Cheikh Saad bu juddu tamit set ني علينا من الرحمن صور مدور الذي مد الارض وجعل فيه بركه المنوره يا ليت لنا او بشرى لنا او من حبنا وحب سعدنا وسعد الخلق خاتمه كرب سيدنا محمد جدو دفا وقتان اك يالا موم كرب بوم جدو عام 1848 دفا وقتان اك يالا موم شان الشيخ سعدو بي شيخ لا نك سؤادو ات ساداني ات سعدو ньо بوك نداي اك باي تي بير تيمير دوم شيخنا شيخ محمد فاضل سؤادو ak saadaani ak saadu ñetti ñi ñoo bokk ndey ak baay ci biir téeméeri doomu Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadilou mm-hmm. ñeneen ñi ci des ñëpp ay doomu baay lañ na Cheikh Saad bu juddu Cheikh su di su adu boobu moo njëkk a juddu ñu jox ko baayam Cheikh na Mouhamed Fadilou baayam xool ko ni kii ku baax la waaye yàlla waxuma woon kii du woon biddéew bi dem leen xool ànd bi fi ñu ko sànni mu des fa di waxtaan ak yàlla ñu indi ànd bi boobu crèche amul Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadilou xotti ànd bi Cheikh na Cheikh Saad bu jooy mu rey lu bëy ñu rey bëy jëy jël graisse gi muuree ko ko mu ci dund moom seen Cheikh Saadu bihi hmm. laataa ngénte li yaayam génn àddina soxna Mariama ñu jël su adu dox ko bàjjanam bi ko roole muy xunu xunuuna ñu jël cheikh na cheikh Saadu bihi dox ko cheikh na Mouhamed Vadil ibnu Mamin cheikh na Mouhamed Vadil bu ko bëggee nàmpal day jël baaraamu taaya bi nga xamante ni yàlla ci lu dugal centième turu yàlla bi mu nëbb ñëpp mu branché ko ci gémmiñu cheikh na cheikh Saadu bihi soo bu neex di ci génn Cheikh na Cheikh Saad bu di nàmp ba nelaw moom góor googu noonu lay màgg ba am quatre ans ni yaa saaxiba yadaani inni ubaydu duaani zajrun bi nas alqurani an malafati nufuusi à l'âge de quatre ans tu peux pas tu peux pas dire ça munoo munoo munoo wax lii ku am quatre ans yàlla wàlliwu suwul ci yow doo mun a wax lii mais moom 4 ans dafa teel a jël engagement ci diggante boppam ak boromam ak àddina ndax an nafs wa dunia habibataani lakka walillaahi aduwataani bakkan ak àddina dañoo associé doon ay ñaari jëmm ñeel na la ñeen yàlla ñu doon say ñaari noon boo leen toppee rek ñu sànk la léegi nag moom à l'âge de 4 ans mu téy boppam ni ni àddina ak plaisir yi bàyyi leen ma inni ubaydun duaani yàlla ma yónni jox ma alquran zajrun bi nasl quraani an malafaati nufuusi ngir ma mën a orienter sama bopp orienter ñi nga xamante ni ñoo nekk sama ginnaaw teg leen ci ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim boobu la yàlla joxoon maamam sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam cheikh na cheikh saad bu ni alhamdulillahi alxabir bima yakunu fi damir asalahu wafqa almasir ala siratal mustaqim soxna maria bismillah man dama doon xaar muhammad muhammad siif sax man dama doon xaar muhammad siif foofu moy Baye Cheikh Talib bu yo Baye Cheikh Sidi bu yo Baye Cheikh Bounana Baye Cheikh Atqana Baye Cheikh Ulwali mom Cheikh na Cheikh Saad Muhammadul Fadli zil fadli wal karam yanen Baye mo Cheikh mohammed Mouhamed Fadil ibnu Mamin talqa Khayar mohammed Mouhamed al Sidi mohammed Sidi al Shamsuddin Yahya al kabir al Qalqami yu moom Cheikh na Cheikh Saad cheikh Cheikhu Cheikh yabi in ta jay la Cheikh na yàlla ni won mamum sidina mohammed inna fatahna lakka فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر محمد الفاد ذي الفضل والكرم ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا سقسيك يا عبد كنت جاهلا Il était envoyé pour assainir et compléter les mœurs et les bonnes qualités de caractère. Le monde a été installé pendant des siècles dans les ténèbres de l'idolâtrie et le culte des biens matériels. Dieu a choisi Sayyidina Mohamed pour qu'il soit notre protecteur. Muhammadul Fadalil zil fadli wal karam. waaye yonent bi juddoo nag ndax diina day am revivificateur aji ki yeesal yàlla tël Cheikh de Cheikh Saad. soo ko soo ko yàbbee kunta jaay loo. yi seex na gën ci góor gu baax góor gu baax googu góor gu baax meññ ko muy Cheikh Mohamed Fadel mi nga xamante ni mooy sëtu Cheikh Abdoul Qadir. Muhammadul Fadalil zil fadli wal karam. Cheikh na Cheikh Saad bu laaj. laaj question nag papa ni cheikh chiyuuxi abi sama baay daal mooy sangu-sang yi mooy cheikhu cheikh yi boo ko xamul mooy muhammadul fadili ñu ne ko mooy kan mu ni dul fadli wal karami mooy boroomu tedd nga mooy boroomu ngëneel man jatawul mustawa bi seet maalo mm, mu mel ni dañ ko laaj yow Cheikh na Cheikh Saad bu yaa yaakan mu ni man jaddoxul Moustapha boo xamul boo ma xamul man yonent bay sama maam bil ir hi ak malahu maa ko doon cik mët yaa xabasa yaa xabasa jaddoo firis duwal umami yonent boobu rek a baax Sayyidina Muhammad c'est le désir de Dieu parmi tous les humains ñi yàlla bind ñëpp bëggu ci kenn ku dul maamu Cheikh na Cheikh Saad bu يونتبي صلى الله عليه وسلم اعلم ان محبه رسول الله هي منزله التي يتنافس فيها المتنافسون كل راو كل راو مي راو تي بغ سيدنا محمد بغ سيدنا محمد فهي قوت القلوب وغذاء الارواح وقره العيون محمد لو غيس موي باخ دي دوخ لولو بغ يونتبي كو دوخال كو غيس موي باخ دي دوخ دي جيم تي كانم بو كونترولي خول بي بغ سيدنا محمد تا نيك yonent bi bëgg ko muy dundal suñu xol kii du am stress day am day am quiétude dina am paix intérieure dina am stabilité dina am développement boko xolé dafa bëgg yonent bi. tafiru badil dal bil khidami an kulli manzilatin tunal an kulli manzilatin tunal bil khidami la ghar wali khaliq la ghar wali khaliq la ghar wali khaliq la ghar wali khaliq la ghar wali khaliq la ghar wali khaliq yuti bil sabab. bil sabab. bil fadli fadlani. bil fadlani. aywa fi lil qurbi wal ajami. yaa ne déggal Cheikh na Cheikh Saad bu ne na laa wali jomb ma am. ñu ne ko lu tax mu ne alxaaliqu yàlla yuuti bila sababi qul inna alfadla bi yadillahi yuuti man yacha ngëneel yàlla moo koy jox ku ko neex waaw kañ ngëneel yàlla moo koy jox ku ko neex laa harwa jomb ma alxaaliqu yàlla yuuti day joxe bila sababin te kenn du ko ni pourquoi ndax lan mo sak joxe mo bind joxe ñi muy jox mo leen bind mo leen yilif yàlla wahidun la min illatin wa mawjudun la min qillatin bil birri ma'rufun wa bil ihsani mawsufun ma'rufun bila ghayatin wa mawsufun bila nihayatin awwalun bil ibtidain wa akhirun bil intihain la yansubu ilayhi al wa la yufnihi tadawul al awqat ngani qul huwa allah ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufan ahad كوك نمل شيخنا الشيخ سعد بن يحيط بالعين وليس يدرك بالعين والتقصير عنه اسلك نيكو نمل من هو الكريم والرحيم والابد وهو القريب واللطيف والصمد كن يعطي بلا سبب بولاي ماي كان دوني بوركوا بالفضل فضلني نيكو لول ماي من بالفضل فضلني تي غنيلم لما غنيلي من شيخنا الشيخ سعد في العرب والعجمي تي ديغنت عرب اركن كدول عرب ما لين ñu ne ko lutax mu ne yonent bi sama mam yonent bi mo fi gën mum sayyidina muhammad ay doom ñoy gën mum sayyidina muhammad ay sëtam ñoy gën ba ëllëg yowmal xiyaam moo tax cheikh na cheikh sad buni la laa garwa lil khaliq yuuti bila sababi bil fadli fadlani fi l urbi wal ajami cheikh chiour siq siyok yabben kunta jaay lawo cheikh na neena sa sëriñ buuru nimzaat saalihin baay cheikh taalibu yow mi nga xamante en 1909 la sanc nimzaat ni ñëw leen képp ku ñëw ma yóbbu la képp ku ñëw sa bakkaar set ñëw leen wajal darixiya kabitika alxaram tuqda biha xaajaatu saairul anam tumxa bihi zunuba yushfa almaradu tuuta bihi alaau yushfa alaradu mooy bàyyi cheikh taalibuya mi nga xamante ni moo wax loolu cheikhi shuyuuxi abi in kunta jaahilahu muhammadul fadil zul fadli wal karam duma arfa dalak ma min taalib al xayaar buñ del maxtaar taalib alif samsidin yaxayal kabir cheikh saat bu neen ndeysaan yee maami Seex yaa mi ci xalifa bee maami Seex Abdul Aziz maami Seex al Baxayda doomi Seex Sàmbi Si bilaay dëgg la yee maami Seex Adraame doomi Seex Sidi bu ya bilaay dëgg la maami Seex Sàmbi Si bi ay dara mooy seen maam moom Seex na Seex Sàmbi waaye nan ka anta saadu suud mooy 166 mooy baay mooy doom gu mët gi moom Cheikh na Cheikh Saad bu mooy sens gu sens gi mooy doom gu mat gi. Anta yow Cheikh na Cheikh Saad bu Saada Suudi yaay sens su sens yi. matlahul garbi laax way xaka fiihi Saadu xayril muzlaxa Saadu bi. saadu xayri ñun maa illa kulli saadin zaxiril jëmmi aryaxi nabi déggal wa manaaral huda moo yoonu njub wa shamsu zamali mooy jant bi nga xam ne moo di dànk te du so. wax yaasul bara. yaa baax. waxaw su bara yaa. yaay doomu ku baax. wab ni xaw si ba. جامع النوال جامع النوال العلا possède la quintessence de la science des sciences et même la science en inconscience. Cheikh Saad Bou est l'espoir de l'espérance l'espoir même de tout espoir. cher Necher Sadbou est le raccourci qui accourcit le chemin qui mène vers la vertu. Être un disciple de cher Necher Sadbou est un synonyme de stabilité. parce que day branché la ilaha illallah. billaay moo baax. bu demee ba faana nee. billaay moo doomu ku baax sax na ci la ilaha mooy xare bi nga xam ne moo gën a màgg. silaahuna. mooy xëyla la. tukararu mooy baatu la ilaha illallah bi ñuy kalimatun. mooy baat bi xam ne. man xaala. képp ko wax. xatun sakki. doo texee di. laakinama. seex na seex Sadbu nee xam ne dañoo raw. kullu taqi. ci lañ jàpp baraw wahiya la ilaha illallah. mooy baatu la ilaha illallah. wahiya la ilaha illallah. mooy baatu la ilaha illallah. man xaala. فخوله كفى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أثلها ثابت وفرعها في السماء سيخنا أم المرام دوت المرام مزلما إبسل بش الله كبتي بركم لا إله إلا الله مويلك سيبكر لا إله إلا الله مولي أجل ربي بلا إله إلا الله مراتع ذكر الله مرعى ومسرح لمكا والحق أعلى وأوضح ربي بلا إله إلا الله إننا فلنرشح بالأذكار شوقا لربنا إننا بدائيا سوى وكل إناء بالذي فيه يشرب ربي بلا إله إلا الله boo bëggee say bakkaar dañ del wax laa ilaha illa Allah nasara kulla ma nasha boo bëggee yàlla bëgg la saxal ci laa ilaha illa Allah ربي بلا إله إلا الله moo tax ma ne ce vocable affirme la foi du musulman تمننا كل ما نرضى li ñu wutaleeg yéeféer yi mënuñoo wax laa ilaha illa Allah فخب لنا جميع ما نرضى li ñu bëggee wax laa ilaha illa Allah dañuy juum oh la la la ñuy wax laa ilaha illallah. waaye ñun dañ koo tàmm ba naan laa ilaha illallah. laa ilaha illallah. dañ koo tàmm ba naan laa ilaha illallah. soxna Cheikh Saad Bou wax na nu digal nan leen sikar laa ilaha illallah. boo ko waxee benn yoon yàlla baal la sept mille bakkaar. haylalatul ilahi bi sawtil aali. dégg nga haylalatul ilahi bi sawtil aali. mamduxaatum zarbaha kullal wali. gërëm nañ ko wëllu bu nekk bu jaar ba egg ca yàlla ci nga jaar. li ana tuzakirul xaflaana. ci sàggan ba du ko wax boo toogee ci yokkam boo nee laa ilaha illallah. تطرد الوسواس والشيطان داي داك الشيطان موم لا اله الا الله من قالها تعزما تكفري شيخنا الشيخ صاد بو نينا بوكو وخي يالا جيغلا لا في منها كبائر قلنا شي 6000 بكار وكو خي بن يون والقلب فيه زن والقلب فيه زفرة فرحة لا تنزري جيغل شيخنا الشيخ صاد بو والقلب فيه زفرة لا تنجري اليمان اسانسيل بيغا خامني يالا فلا خات موي لا اله الا الله élément essentiel bi nga xam ni mooy nekk ci nit mooy laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah xol day tilim li koy fóot ba mu set mooy baat boobu cheikh na cheikh saad bu nee na yàlla xajul fenn ci doomu adama lu dul ci xol ñu ni ko ban xol mënu xol bu set xol lu koy setal laa ilaha illa allah wal qalbu fihi zufratun la tanjari illa bi zikrillahi bi siyawtil alim nourriture spirituelle du cœur et de l'âme c'est la ilaha illa allah 24 24 lettres la ilaha illallah muhammad rasulullah muy 24 heures boko et doto am 24 heures yi spirituel du cœur. nourriture spirituelle du cœur. du cœur et de l'âme. et de l'âme. et de l'âme. le cœur reste ici. Mm-hmm. l'âme c'est l'au-delà. Mm-hmm. quand tu dis la ilaha illallah day setal sa xol. Mm-hmm. bu sa xol day setal sa xel. bu sa day setal sa jëm bu setalé sa jëm day xetal sa day setal sa quintessence li nga waral li waral yow nga am waaw kalimatu tawhid in takun rasat ala lisan lisaani fannifaaqu qad sabat wa in takun mahalluha qalbu fadha huwa فذا هو الإيمان nubiza wa وإن تكن sukunuha للروح فذلك العشق مع الفتوح وإن تكن ساكنة في سره فذا على بصيرة من أمره moo tax Cheikhna Cheikh Saad bu إنه إن دام للقلب يسير ثم إلى روحك أيضا قد يسير ثم إلى السر تكون غائبة في لذة الذكر إذا وذاهبة اسكي اسكي وا ماريا يلا يلا فايلا سوما مام موم او ديبي غيسول وون صاح شيخنا شيخ صاح موم سخنام سخنا بريما كومبا لا تود دا فا دوند 63 ans amul dom mhm. waye nak borom kërëm di cheikh ribou mane doonoon boroom alal yàlla may ko barke mu bokk ci askan mu baax mhm. ba pare siluse woon comme ni sama papa wax mhm. mu noonu sañse doonoon borom borom barke daal mhm. laataa muy gisee cheikh ne cheikh Saadu bii c'était un saint mais kenn xamu ko woon parce que jàng na ba doon tafsir tafsir Masamba Jéeri Jeng moo ko jàngal ci Ndar bi muy nekkee ndar ba jàng ba doon tafsir am fa xarit bu ñu naan alaaji Samba Ndukumaan Njaay mm-hmm. moom lañu tuddee alaaji Samba Ndukumaan Sekk taawam mm-hmm. kooku moo ko may fas mu jaay fas wi ñëw Tiwaawan continuer commerce am ba cheikh na cheikh Sadio bii wasilatul kubra bu baax boobu nga xam ni ñaari yoon la mës ñëw Sénégal mm-hmm. moom cheikh na cheikh Sadio en 1872 la fi njëkk ñëw ak en 1903 bi mu ñëwee Sénégal moom Cheikh na Cheikh saat bu def tournée parce que dañuy tourner rek di wër ci taalibe yi di saafoon teg ñoom buñ leen dalalee ba ngoon wala ba fan wala ñaari fan. ñu jox leen hëddiye ñu ñaanal taalibe yi dem. bi muy tourné nag ba dugg Tiwaawan suma maam di dem marché ñi ngi dalal Cheikh na Cheikh Saad bu ci buntu jumaa ji mu samp fa xay xaymaam. Mm-hmm. comme que moom rek mooy saaxibu laa ilaha illallah sallami de laa ilaha illallah. fu mu toog rek dañuy sikkar ah bi sama mam dee dem marché xool xayma bi gis fa cheikh na cheikh Saad bu muuru ba ñaari bët yi rek di feeñ mu xool ko nag yaramam daw mu daw marché ni ko yërib mu ni ko ki ma gis bu ñu ñaanalee ñu am doom ah comme na teraanga doom bëgg dund na 63 munu ko mais yow mënatoo que ménopause la munu ko nañ dem rek mënu ko ñaan lu nga fépp dootoo mën a am doom mënu ko nañ dem rek xam nga jigéen ju baax des fois. Mm. dina forcer jëkkëram ci lu baax ba jëkkëram. Mm. waaw léegi nag mënu ko lan la mënu ko man tey shérif laa ko teg parce que ñu ngi ko wër di zikkar rek. mënu mm. ko kon léegi nañ dem marché ñu jëndal ko ndebal teranga ñu dem marché yi jënd genn wàllu nag ñu jëndee genn wàllu nag ñëw ci kër gi togg ko def ko ci ay bool yi yanu ko ñu dem ba ci xayma bi rang comme ni ñuy def rek. ba seen tuur jot. ñu yebbi ndabal teraanga yi ci kanamu Cheikh Cheikh Saad ni ko ñun dañuy jaay bëgg rekk doom parce que ay mag lañ te amuñu doom te bëgg nañ benn doom bu ñu deewee mu doon ñu Cheikh Cheikh Saad Bou xool leen ni leen di ngeen am ñaari doom ñu ko lan mun ko di ngeen am ñaari yoon doom boobu Cheikh am na 65 ans mhm. ah ñu xoolante baax ñu dem tëddi bi ñu tëddee ba guddi Cheikh yee soxna si ne ko suba damay jébbalu ci shérif bi mun ko non kii xamoo ko yow yaa ngi fu mu dëkk xamoo fu mu jóge xamoo nu mu tudd mun ko mooy doon sama sëriñ yàlla boole ne leen ah ñu xëyaat ñëw seen chassaat bu ni leen li ngeen doon ñaan lu si démb yàlla xamal na ma ni dina am di ngeen am ñaari doom kenn ki mooy alaaj Samba Ndoukoumane Seck bàyyi